yéene juray ba faf mar si qalbu kaawu tey ji dina jooy Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke Balla laay jooy o qalbu kaawu tey ji dina jooy Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke Balla laay jooy yu foor a foor Cheikh Mbakke Balla Muxtaar ko kay sama sëriñ moom rekk laa miin xamuma keneen fa may jële teele neen wii man sama xol bi dafa tooy manul ñàkk faw faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jaaxle lool tey jooy ku mu daloon faw faw kan nga jooy bisub talaata la mbir ma xew ci réew di daw yuuxu tanaan luy mi ñu naan yàlla na seexu si muxtaar mbàkke ma ñu xamoon muy maadi seex sidi muxtaar mbàkke balla isa ndax nanu ni ba ci biiru suuf saas cey balla maaka waarooti li yàlla wax kullu nafsin zaa'iqatin mawti diinay lislaam ji joo wasaaka nasraanu billaahi mbaake sa den bi jaaxal na ma cey fa ma jam ndax sama borom xam na ma minal muslimiina muslimaat ñëpp ko jox muxtasim bi qablillahi mooy waxam jamian wala tufarriqu mooy mbegam innamal muminina ixwatun la daa digal fa asliqu bayna axwaykum mooy ndigal daana wax naan bëggatuma dégg kenn ku naan mati jam diwana ni semtano weri worando wareno tay benno juleno Seex Sidi Muxtaar dem na faaw bàyyi ñu cey fa ma jëm xamuma ko man dinaa cey Yàlla la ilaha illallah mboolem jullit ñi dëkkee xaroo ak a jooy ca yàlla dem na tey mboolem jullit ñi dëkkee xaroo ak a jooy Seex Sidi nax na nu dem tey bilaay ñun suñu sañoon doo dem tey sanaal yu rëy Mbàkke rafet na lool Tuuba Mbàkke rafet na lool yeesalaat nga ko ba yokk ñaari sooroon mu jëm ca kaw Mbàkke sa jëm ji rey dellu yeesalaat lépp lu fi rawatina Tuuba Mbàkke mu taari na lool li yëpp liggéey diirub juróom ñaar at juróom ñaari weer juróom ñaari fan mu daldi mat juma juma ji fa Ndakaaru kenn masa gis lu mel ne wax leen mu daar leen waa Ndakaaru tabbi jinaani ci juma juma ji di Masaalikul Jinaan Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke doy na juróom ñaari at juróom ñaari weer juróom ñaari fan ya juróom ñaari lu doomu Seexu Baara ya juróom ñaari lu xalifa Sëriñ Baara juróom ñaari soorool yu jëm Jilaani juróom ñaari milliard masalikul jinaan juróom ñaari at yu teg juróom ñaari weer juróom ñaari fan moom la fi def far lépp leer tey mbàkk yoonu makka danan la jooy alxaaji yeeke ajaratu ñëpp a jooy waa Sénégal jooy nanu mbàkke bal waa bitim réew it doy nan la Mbàkke balla wallaay Mbàkke nii ñëpp ngi nii di sëgéem di jooya jooy ba fof mel ne taal bu maa ngi lay jaale waa lislaam xadila jaale Cheikh Mountakha saraktu ji Cheikh Mountakha Mbacké Cheikhu Sidi ñaari jëm kenn yaral mi daadi ilahi ilal muxtaari maxtaaru musrifan wasalli bi taslimin alayhi wasarrifan ilal muntaqa أوسن سرورا وقدما ومني تقبل قلمتي ولتعزما ñaari bay ni doy naa yam ci ñi jaar Cheikh Mountakha Mbacké Cheikh Sidil Moutar Cheikh Sidi Moutar sa jëf di yaa àdduna yaa na siiw ca yàlla laa ilaaha illallaahu muhammadun arsalahu ilaahu taxawlu naa fii doy naa yam ci lii ma xam dinaa del si waat te jéema ñëw cay jëfam taxawlu naa fii doy naa yam